pourtant si ma nekkoon ni la ah. ci àdduna waxuma la Sénégal bër defal ah, ci bis ah? réseaux sociaux. man waaw internet massager lépp luy. rythme ak gaam. ak luy doxal cerveau. maa ngi jégalu euh, dama bëgg. balaa noo dem ci champ de bataille bi. parce que combat ku fay dem ku ne danga koy waaj. waaj soo ko waajul mën nañ laa dóor bal peddi. dëgg la nga yàqu. comme que noonu lañ ko programmé li ci nan xool nu ñu jàppee bës ma woo sama rakk géwél yi. jàppal bés de. xam ne heure bu ma leen leen jugal ñu jóg.